wutuma dara pour man wutuma dara nëbbuma dara nëbbu dara am na ñoo xam ne tey danañ ma mere biñ fi génne parce que yëgaluma leen parce que man lépp lu may defee pour béykat mën a dundee ak sincérité Aliou Sow ñu déglu laa ko parce que du ma xam ne weer ak weer am surtout moom oo ñu ay kilifa te xamoo ci loolu ma oo Aliou Aliou dama war a dem toolam mais finalement nañ ànd foofu dem dem ma oo Aliou man de la quatre heures quatre heures de parce que tout ça maa ngi xool ay ñoom Fatou Fall ay kilifa ay maire yu nekk yëpp amul kenn ma ci sa bu buñ diisoo ñu bëri ñu teew Fanta Sall bi bu ma gisee Modou Sall dama ko tax oo ma ko yëg ko mu taxaw ñu c'est ça la responsabilité Adama Diouf seen léegi bi am parce que dama bëgg ñu positif suñ positif ñu wane yoon lii mais wax naa la dëgg des micro la mu ne laa lu ma def ci ak ay décennies ci religion bëgg bëgguma ko lu taala bëgg bëgguma ko su ma naree bëgg dama ne wax lii laa bëgg bëgguma ci dama parce que man je suis un libéral Aliou Sow maanaam moom on est de la même couche libéral de souche et libéralisme boobu daf lay tax am liberté liberté mooy li nga bëgg nga assumer ko mais nga respecté aussi li nga àndal loolu moo tax lépp lu nit di wax li nga xam ne demul ci waa dafa nekk benn yaa ngi ci dëgg tey c'était le point de départ mais tey point de départ la baax na mais suñ ko suuxatul lu muy yàq moo ëpp lu ñu commencé moo tax nañ ko suuxat tous les jours ñu bàyyi ko xel mbokk bi ñu koy dox ànd bi ñu ñu koy sàmm xam xam ni ànd naw la rek a fi am fii kenn mënu fi jaay kenn tey su ngeen fi taxawutoon tey wane ñu jàppale ñu maam Aliou yi ñu àgg fi am suñu doole ci yéen lañ ko jëlee kon luñ am war koo delloo ci yéen man loolu laa gëm et ci loolu lay dox tous les jours